bi yeex Atepa Goudiaby daal nay daal di indi ay leeral ci li nga xam ne nag moom la nit ñi di waxtaanee jamono ji yépp ni Sonko dafay dialogue ak Macky Sall wala sax sonk ak njiitu réew mi ñu ngi daal di teg ay deal moom moomee nag bi nga xam ne moom daal na ci dox ay médiation daal na ci daal di indi ay leeral ak mbir yi rek naka la daal di tàmbali. moom Atepa ginnaaw bu njiitu réew bi nag daal di sàkkoo gisanteeg moom ngir ñu daal di lépp lu jëm ci euh, daal di apaiser situation bi nga xam ni moom la ñu dund jamono ji la nga xamante ne si nag moom la daal di njëkkee muy rek daal di delloowaat Walfadjri li nga xamante ne si nag moo di seen signal wante kanta jëm ci mbiru coquette di Ousmane Sonko moom Atépa nag moo daal di demoon daal di seeti ka nga xamante ne si nag moo di Ousmane Sonko daal di koy fekk nag ci condition yu bien ci ku nekk ci jàmm ak salaam la nga xamante ne si nag moom lañ daal di waxtaanee moom Atépa daanaka xuusu ci ba ci biir wante daal nay tontu ci yenn kàddu ya nga xam ni nit ñi ñu ngi ko doon wax rek ni kookee di njiite réew mi jot na waxtaan ak téléphone ak kookee di Ousmane Sonko moom Atepa daal nay xam la rek ni loolee nag daxa amu ci moom Atepa moo seeti Ousmane Sonko jot waxtaan ak moom ci yenn ci bëgg-bëgg yu njiite réew mi la nga xamante ne si nag ba mu ko waxee kookee di Ousmane sonk lu jëm ci wàllum dialogue bi moom Ousmane sonk daal naka daal di xamal ni je bien mais il faut que rek ñu daal mu daal di waxtaan ak ñi nga xamante ne si nag ñoo bokk ci parti boobee di Pastef wante it faw ñu daal di libéré détenu politique yi nga xam ni jàpp nañ leen ci ay manifestation boobaak léegi nag ñu nekk ci prison yi te ñoom ñooñee nag defuñu dara loolee nag ca la ko daal di koy xam ne rek ni yow nag faw ñu daal di libéré mu ne ko nag nañu daal di doox libéré ñi nga xam ne nag moo di ñi jàppoon ci manifestation yi ndax nag ñooñu ñoo gën a important que man mii di Ousmane Sonko ba sax nag mun nañ daal wax rek ni loole sax njiital réew bi daal na cee daal di d'accord ba sax mu daal di commencé rek ñuy libéré ñi nga xamante ne si nag ñoo di ay détenu ci semaine bi ñu génn ñu bëri nag daal leen daal di libéré moom Atepa daal nay xam ne sax ne kookee di Ousmane dinañ ko daal di libéré bientôt ci lu yàggul dara wante nag daal nay xam ne rek ne mënoo bëgg dialogue gi ak kenn ba pare te kookee sax nag daal nekk ci prison yi ba tax mu ne kookee di Ousmane sonk dinañ ko daal di libéré ci lu yàggul dara moom Atepa ci gis-gisam daal dinay ne rek ni élection yi nga xam ni bëggoon nañ ko puus rek ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci gis-gisam mooy rek ni njiital bi dafa bëggoon rek ñëpp daal di bokk ci li nga xamante ne si nag moo di yi de même que nag kookee di Ousmane Sonko di libération Ousmane Sonko rek mu daal di am ay procédures ya nga xam ne danañ ko daal di amal wante it ngir ñu bokk rek ci élection yi foofu ñu daal di commencé waat li nga xamante ne si nag moo di processus électoral te loolee nag dafay son élection yi ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre kooku di Ousmane Sonko dina daal di mën a bokk rek ci élection yi nga xam ne moo war a am ci atum 2024 bi ba tey jii sax nag da jàppaguñu bann jour rek lañ ko wax a amal wante ni ki rek tey ci alxames bi ñuy réew mi wax a jàkkaarloog askan wi yëkkati ay kàddu njott nañ ni sax nag ni tey dinañ daal di xam bann bis rek lañ daal di wax a amal élection yi balaa rek ñaari fan ci weeru avril wante kookee di Ousmane Sonko jotuta dégganteeg njiital réew mi wante li ko gën a yitteel te gën ko soxo la mooy rek ñu daal di libéré ñi nga xamante ni si nag ñoo di ndaw yi ñuy jàppoon ci manifestation yi moom mu sax nag garaawul wante ndaw yi daal ñoo ko gën a yitteel pour rek ñu daal leen di libéré. Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout la nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram listixaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh Konte tey ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk